jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare mu mbokk yi nuyooti ngeen leen am kontaan ak mbégte comme nañ ko defalee saa su ñu ngi fii ci Pikine Pikine nag dañu ñëw tey seet si le PGD euh, Ablaye Djigo Ablaye Djigo moom la ñu seet si moom kenn la ci nga xamante ni moom la idaale ñu ñu ngi production parrainé ci bisam boobu nga xamante ni mu ngi ci jëm waaye heure ndogu dafa jot nag euh, ñu ñu doon xaar ba say xam naa am waxtu bi du ko mat waaye dañuy dugg ci biir xool ko xool ñu ngi xool mbokk yi nan la ñu toogee ko defee ñu mën a ndoguwaale tuuti ndax sëñ Bass xam naa li njuufeen bi xiif nga sonn nga du mën a ñàkk juuf góol juuf laay sonn nga liggéey noonu noonu la demee dañuy yëg ndànk rek dugg xool la PDG euh, jubóo xool mi ñuy fas yéene nga xam naa ni wàccaale fii la wala du fii bisimilah salaamaaleykum ah kilifa gi daa mel ni dañoo xaw a tardé de maa ngi soxna si daal sëñ Bass yegsi bisimilah si ko maa def yaa ngi jàmm kilifa gi maa ngi leen di siyaare maa def coono maa yaa yam jàmm yàlla ñu ngi maa yaa yam jàmm kilifa gi siyaar naa la de bisimilah du mën a ñàkk seet si waaw waaw yéen moom yéen a ngi waroon affaire yàlla ñu ngi jàmm mbégte bu baax a baax a baax waaw di kontaan rek ci yéen waa Wassare xam ñu ñëw fii kër Ablaye ku baax xam nga féete ñu mbagu waaw ñu pare naa ko ba nga xam ne ñaari grand combat yéen tëgg benn grand combat moom moo ko nag bon mën naa ne daal dañu lay yàq daal li ngeen di fekkoon daanaka fekk ngeen yi ñu commencé gannaaw moo nekk nii ñooy xaritam lañ wax dëgg yàlla ñu am mbégte bu baax seen teewaay fii daal waaw ayca kon ñu fas yéene ñu fas yéene reer te du te du reer taxul reer bu ci de nañ dako pare rek ah sëñ Bass <laughs> ah ah sëñ de nañ dako ba pare ah ba continué ah kon baax na kilifa gi soxna si kilifa gi maa ngi lay ziar bu baax ñu ngi lay ziar ñu ngi leen di fay ngir bis bi nga xamante ne ñu ngi production dana ko dara jaale bëgg cee waxtaan bu bare bare bare ñoo dundee koor gi waaw koor gi nag ñu ko dundee vraiment macha allah comme yàlla may nañ ñu fekkee ko ci jàmm am wér yaram njaboot gi ñëpp fekkee ak am lu ñàmm yi vraiment sant yàlla tey moom dama gën a kontaan ci koor gi ba mu amee ay jullitu yàlla yu ñëw ndogoo fii waaw loolu moom moo cee su ma sañoon chaque jour lay am ba weeru koor gi jeex waaw loolu moom vraiment nekk na lu rafet. Hmm. li may kontaan lu waaw. jërëjëf mu ngi noonu le PDG Abdoulaye Djigo euh, tey dañuy ñëwaat dugg ci xarit yi kilifa du bi. Abdoulaye Gueye. Abdoulaye Gueye. ay ngeen di lekk rek nga bëgg. maa ñun tur yàlla ñu dundee. Hmm. tur yàlla am jàmm ba. sant nañ sëñ Tuubaa bu baax. alhamdulilah yàlla na sant yàlla. Ah, alhamdulilah. kilifa gi maa ngi lay waaw ndax mu kasaalika. tur bi naan la. Ah, Seydou Jamil. Seydi Diame waaw ah Seydi Diame ñu ngi lay siyaar waaw Malick Ndao ñu hmm. ngi def. Hmm, sant bu baax la tey ñu ñëw fekk la kilifa yi kër Djigo. waaw Djigo moom suñu waaj bu baax la moom. Hmm. waaw ñoo bokk di liggéey. waaw di ko ñaanal jàmm. ak sutura xéwal. waaw lépp lu ñu dugg rek yàlla si. tawféex. bi jaay Seydina Muhammad. waaw. kilifa yi maa ngi lay siyaar de. dalal naa la ko sant bi. tur bi la. tur bi Adama Ndiaye la. Adama Ndiaye. waaw. Ndiaye bi ci loo nekk. ñu ngi sant yàlla bu baax. xéwlu nga lépp. waa xéwlu naa di baax moom. Eh. waaw vraiment. coono. sant yàlla alhamdulilah. tey bis bi nga xamante ne tuddee nañ ko Djigo eh, ñu koy waajal. ba yëg-yëg nga ci am. waaw dañoo ci am mbégte rek. ginnaaw ba ñu sant yàlla borom bi jëlee ci yonent bi ku tedd gi dañ ñaan yàlla rek euh, vraiment euh, li ñuy def yàlla nañ ci yàlla def jàmm rek ak salaam waa di am mbégte si euh, PDG Abdoulaye jigo di rafetlu lii yëpp ndax vraiment bés bi méré na ko parce que gars yi dañuy wax en général bésu tudd borom lay tollool te lii wane na ko quoi xam nga dañ koy ñaan nag lii euh, muy euh, songu tat lii muy songu yàlla ci dugg ci bisimilah rahmaani rahiim ci alamin ci dara ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla defal ko jàmm salaam ko mboolem jullit defal ko ñëpp incha allah. jërëjëf am na solo euh, kilifa gi maa ngi lay nuyu bu baax di la bu baax ku alxaaj Sidi ñam la. alxaaj Sidi ñam. baa ngi mu jàmm. ñu ngi sant gërëm yàlla. xéwlu nga bu baax. xéwlu naa bu baax a baax a baax a baax. ndee koor gi. ah ni ma koy dundee rek xalaat dafay ko li nga xam te noonu ko suñu borom diglee. Mm. voilà bu waxtu jotee te duñ ñu defee ko ni nga xamante ne la ko jaayee bi ak ñangeen ak jigéen jigéen ñu ngi koy defee voilà parce que jigéen jigéen gis nga euh, teraange gi ñu def mu am solo macha allah donc euh, fi mu toll lépp a doy voilà yaakaar naa ñu mën nañ cee ndogu juróomi fan baa baa bi def ñaari deux semaines rek voilà gis nga ko nii nga ko fekkee di ko ñaanal rek euh, bés bi nga xam te ni moom lañu jëm mm-hmm. ñu àggal ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin aussi am ci promotion bu yaatu yaatu yaatu et puis euh, képp nga xam tam ni euh, bëgg na nañu rencontrer donc euh, mu jaare ci lii parce que lii Wassare daf na woon day liggéey liggéeyam te du te du dugg ci yenn média yi mm-hmm. mais nag ñun ñi ñoo ko ne amatul droit liggéey te doo ko won télé bi ñu kenn ku ci nekk dugal ci sa loxo. kon nag euh, saa waay li mu def. Mm-hmm. dafa am mm-hmm. kon promoteur bi mën naa ne moom mooy promoteur numéro un. Mm-hmm. parce que moom moo fekk loolu nga xam te ne askan ñëpp ko soxla. mu génne ko teg ko ci bi. ñëpp mën ko gis ba kenn ku ci nekk mën cee ñëw participer ci dugal parce que teraanga ñu ne fu ne. ko doon kenn amul droit dugg ci ruq naan maa ngi koy kon nag euh, Djigo ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér. Euh, ñaanal Thierno di ko ñaanal njabootam parce que bu ñu ko ñaanal njabootam ñaanal nañ ko ñëpp. parce que koo xam te ne li muy def rek danaan euh, mm-hmm. kon kooku ko war a ñaanal. Mm-hmm. gudd fan ak wér. man nag euh, na xam ne maa ngi ci wetam. Mm-hmm. donc lu ñu dugg rek incha allah rabbi dina ci génn taxaw taxaw doo xam te ne incha allah rabbi dina génn ci alhamdulilah rabbil alamin. voilà di leen sant di leen wax ne leen sant ngërëm ndaw ñaan leen. boo leen jamono incha allah. sama confrère bi Siteu maa ngi lay siyaar. namu naa la. maa ngi am jàmm. waaye maa ngi am tawfeex bu wër. naka naka naka dëkk bi naka koor gi. dëkk bi waaw koor gi métti na métti na nag. Hmm. yaa ngi ci koor. waaw maa ngi ci koor bu baax a defar nag am. am nañ kat. yow daa mel yaa ngi ci koor gi. waaw maa ngi ci woon damay woote daa naa laara. lëkk bi nag noo dundee événement bi nga xamante ni ñu ngi ñu ngi koy jublu surtout tournoi bi. waaw ñu ngi moom li may wax rek moom borom baax la. Hmm. boo xoolee saa bu tëgg rek day doon njukkal jeunesse bi. Hmm. ma génne boppam ci jeunesse bi mënoon na ne booy maa leen magee tuuti ko dafa ñëw jël lépp dóoree ko jeunesse bi jël drapeau bi nag tuddee ko PC Djigo wax dëgg yàlla muy doo ko gis de mais macha allah taxawaayam si yoon fexeel sooy sooy àndandoo na si ndaw ñu bokk rek bu yàggee dina baax te bu ñëwee gis naa ko ndaw ñu fekk naa si kër gi ay ndaw tamit mu wóor la ndaw moom ba loxoom sotee naa bokk ku nekk mais fexeel ba boo jiitoo rek boo gëstu boo gis ndaw lu bëri sa gannaaw bu sa ndaw di màgg lépp dina baax di ko ñaanal yàlla rek diggante moom ji daal di ñëw yal na yàlla kooku na seen taxawaay bu mooy première fois bu ma juumal mais yàlla nga dem ba ay ati at ba saa yi bu ñu tuddee drapeau yokkute di gën a am mu ñëw fi dañu def fi ay berne yoo xamante ni ku nga xam ne nit ki wóor ba ngoon jot nga ñëw ci berne dama tàngal nga jox ko bu lekk di suur rek tiyaaba ji si yàlla wax rawat na nga jël tey lu mel ni xëy na bu nekk ñu tegal yoon lu lekk bu suur kon kooku yaakaar naa bu sante yàlla bala moo santaat yi daal di mu ko fi indi sax jugoo la ñu sant ba pare dara kon di ñaan yàlla ànd yàlla continuer rek si barke yonent yàlla Muhammad si barke Maolana si Ibrahima Niass si barke Baye ak Bayam ñu jox sa wàccuwaay bu baax a baax kilifa yi bàyyi nañ ñu. maa la kon Mbaye nga nekkoon daa bëri. waaw de. waaw waaw gis naa ko wala. rajo bi xam ne dama nekk ba suñu bàyyi. waaw. ñu jëm bis bu mag. production organisé ko. tuddoo ko le PDD taxawaay nga ci am ak ban gis-gis nga ci am. waaw maanaam dama ko rafetlu. tout d'abord avant tout damay damay remercier ñu fi toog yëpp. Mm. di nuyu Abdou Talib. Mm. dana wax li ñu def maanaam si ñun la ko njëkkee. kon li bett ñu quoi. encadré nañ ay rakam xiifuñ maruñ. kon suñu gisee ni tamit dañ nekkul la première fois. ñu ngi rafetlu waat euh, jotaay bi. leen ñaan tamit fi ñu bëgg a ñëw yàlla yóbbuñ leen fa. vraiment man nag xam naa affaire bi tiimoo si bu bëri. bu ñu ñaan yàlla daal lépp ñu siy séntu mu kaw suñu jor mm, vraiment maa ngi ko rafetlu bu baax nag. kon daanaka mën naa ni kontaan nga daal. non man kay fu kontaan jeexee fa laa commencé. vraiment c'est très humble quoi. kontaan naa trop di remercier waa Abdoulaye di wax li mu mën doon. Mm. yàlla bu mën déwén. dëgg wax li mu def nii. Mm. maanaam si si ay rakam ak si famille la ko la ko njëkkee. comme su ko defee su ko defee nii tamit du ñu bett. dëgg la fa la ñu ngi koy ñaanal daal fu mu bëgg ak moom famille ak ñëpp yàlla eggoon doon fa kontaan nañ daal. waaw kontaan nañ trop. di di remercier dem jabaram waaw vraiment kontaan nañ daal vraiment dañoo xol moo tooy bu ñu wax sax. jërëjëf jërëjëf kon xam naa dañu fas yéene ndogu su ko defee ñu duggaat ci biir kër gi xool ñi nga xamante ne mën na leen a jëlaa waaw kay sëñ Bassirou war a dégg taar bi. jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb ak le monde en Dakar ñu ngi fii tey ci pikin euh, yàgg naa ko wax xale bi ñu fi woo yàgg nañoo woo ci événement boo xamante ne vraiment euh, événement yu spécial la muy Idaly Gningue njiital Gningue production mu woo ñu fi ngir ñu ñëw euh, bokk ci li nga xamante ni saa su ne rek lépp lu mu nekk ñoo ngi ci ñu toog ak ki nga xamante ni mooy le PGD euh, Ablaye Djigo nga xamante ni vraiment li muy yëngu ci réew mi bari na trop nekk xale wala nekk doomu réew mi vraiment nekk ci réew mi di liggéey. yor ñi nga xamante ni ay doomi réew mi lañ ñu topp ci ginnaaw mu ànd ak ñoom di liggéey ci liggéey bu rafet kooku tey bu ko ñi ngi jëlee tuddee ko bis wala mu darajaal ko bis képp kuy doomu réew mi te bëgg ci réew jëm ci kanam yaakaar naa ne war nga cee mën a jàpp gannaaw loolu dañ koy bàyyi moom mbokk internet yi ñuy seetaan euh, moom Djigo le PGD defee ñu wéyal waxtaan bi kilifa gi maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di ziare maa ngi leen di fay man la Abdoulaye Djigo PDG Wassa Jeune Lour maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ah. hmm. ci barke koor gi ñu commencé ko bismillaahi rahmaani rahim terminé ko alhamdulillahi la alamin Euh, Djigo ci ci ci li nga xamante ni moom nga jiite muy muy groupe Wassare groupe boobu euh, ci lan lay yëngu. waaw Wassare Général Lourdes yëngu pratiquement ci BTP génie civil mm-hmm. ak euh, prestation de service. Mm-hmm. loolu la Wassare Général Lourdes di yëngu. Mm-hmm. te même temps day defaale vente assurance location automobile moom la Wassare Général Lourdes di yëngu. mu nekk loo xamante yaakaar naa ne képp ku nekk ci réew mi yitte woon na ko tey ban taxawaay nga am. am ci ñi nga xamante ñoom ngay liggéeyal waaw taxawaay bu ma am ci ñu may liggéeyal mooy vraiment bëgg naa leen jàppale bay duñ mën a ñëwee ci ñeneen ñu nekk si yeneen entreprise yi mhm. euh, c'est vrai que benn entreprise bi nga xam ne jeune sénégalais moo ko moo mhm. te boobu yaakaar naa yàgg na parce que entreprise bi actuellement am na huit ans mhm. mais puisque dama bëgg sama gox muy Pikine Nord moo tax ma ñëw installé ko fii base bi di fii donc képp ku may recruter a a ñoo fa nekk ñëw ñëpp yaakaar naa waa Pikine lañ. Mm-hmm. te Pikine dong laa bëgg mu soxaliku. parce que mm-hmm. Pikine mooy li nga xamante ni mooy sama dëkk. Mm-hmm. fi laa sama njaboot fii la xëy. Mhm. yeewoo fi di fi jàngee. Mhm. Mhm. kon mu mel ni li wolof naan foo dem fekk fa mbaax loo am ci mbaax foofu nga koy yóbbu pikin ni mu mel ci yaw lépp loo am ci mbaax wala loo am ci tabe biir pikin nga koy delloowaat. waaw loolu am na la preuve mooy pikin bañ naa ko ba am na benn association bu ñu ñaan euh, ABS. benn association pour jigéen ñi nga xam ne dañoo néew doole. ñoom tijji naa leen benn coopérative déjà pour preuve pour wane ne vraiment man pikin laa bëgg mu soxaliku. képp kuy kii dafa ñëw pour Pikine soxle ko surtout Pikine Nord bi ma dëkk. muy góor muy jigéen képp ki xam ne jeune nga damay laajte damay lancer appel. li hmm. nga a xam ko. Hmm. mooy da nga war a tiitroo fi nga dëkk. Hmm. foofu nga tiitroo da nga war a soxali nga xam ko. tey ku munti doon loo munti am soo ñëwee dinaa la jàppale parce que yi bàyyi woon nañ location vente mais man dama koy indiwaat. Mhm. location vente ñu bëri comprendre luñ ko mooy que ne loo am comme ni ngay loué. Mhm. Euh, soo su fekkee ñoo nga man loolu ngay loué nekkatul li nga xamante ni da nga war a dajale da nga koy loué parce que yow yaa moom kër googu noonu nga loué mhm. donc doo fa mën a génn parce que da jàpp ne maa ngi fay kon kër gi moom moom la. donc système boobu moom laa bëgg mu gën a avancer te Pikine Nord laa koy njëkkee. déjà commencé naa ko construction aussi bientôt su études yi pare danañ ko commencé après yéen da ngeen ñëw def lancement projet bi incha allah. incha allah tey lan moo la ci ci ci làmb. ba tey euh, jeune bu mel ni Idda ñu ngi gis la am cofeel ci yow jël bis dara jaalee la ko lan la. waaw loolu cofeel la bi nga xamante ni Idaly vraiment am na ko ci Pikine muy sama waay mu gis may yëngu ci social. Mm-hmm. mu ne vraiment comme te jigoo sama waay la ñoo bokk dëkk fii di Pikine te dañoo bëgg a Pikine soxaliku donc il faut que ma ñëw dagg euh, tuddee ko benn drapeau pour que jeune jeune Pikine yi. Mm-hmm. xam na ne vraiment Idaly mi kat pare na pour Pikine mun a avancer. Mm-hmm. parce que le fait que muy jël ñeneen ay borom ndomba tànk yi nga xam ne vraiment ñoo ma gën a kawe ay responsable. tuddewu leen ko tey mu ñëw tuddee ko ku ñaan Abdoulaye Djigo muy doomu Pikine di référence di def social. idda gis idda ñang production gis loolu mm-hmm. ñoo di doxal loolu vraiment man aussi dama ci sawar te dama ci kontaan mm-hmm. Mm-hmm. Euh, tey euh, làmb ji euh, taxawaay bi nga xamante ne am na ko ci yow daan nga seetaan làmb amoon nga mbëru làmb wala daan nga dem làmb lu bare bare waaw man daanaa dem làmb mais bëriwul mun naa ne ñaari yoon laa ko dem depuis temps Tyson ah. parce que mhm. man dama ne woon man dama mos a gëm fu ma nekk. parce que mhm. boobu Kaolack laa nekkoon di jàng. Mhm. moo taxoon ma bëggoon Tyson. ba muy bëree ma toog di ko supporter mais ba mu demee ba bàyyi làmb pratiquement du ma ne bàyyi naa ko de naa ko suivre. mais comme que Pikine laa dëkk. man aussi bëgguma tudd sax ay mbër. su la neexee mun naa tudd mbër mais képp ki xam ne mbëru kon da ngay sot rek parce que affaire làmb moom affaire gox la ku lekk sa gox ngay représenté. Mm. loolu am na loolu am na parce que mm. d'ailleurs Euh, lu tax bëgguma tudd tur su la neexee comme te presse bi day dem rek. ku la neexee tuddal ku la neex. ku mel ni Ama waxoon a bi. Mm. surtout ñang production ko respecté trop ba ma ko waxee il faut ma respecté ko bësam bi. Mm. respecté heure bi ci mënoo def loolu. Mm. beneen bi mooy que ne ëmb yi tamit vraiment contact bi moo ngi daw. moom maa ngi koy mais comme li nga wax la comme te damay sot képp ku dëkk Pikine mhm. man nag may neex mhm. man du ma ne kii mooy sama mbër wala kii mooy sama kii déedéet képp ku dëkk Pikine rek nga ñëw sollicité ma wax ak man mhm. bëgg lu mun a jëmale kanam Pikine vraiment man maa ngi ci ànd ak yow muy muy mbër yi muy jeunes yi waaw am na solo ñu ñëw ci bis bi nga xamante ni Gningue Production dara jaaleen na la bis bi mu nekk le vingt six incha allah arène nationale mu nekk combat boo xamante ni combat bu neex la parce que ñaari xale lañ yoo xamante ne vraiment buñ ne Yankaw Junior tudd caatu Daouda Fall ay xale lañ yoo xamante ne làmb am nañ ci moom ci ñoom yaakaar ëllëgu làmb mun naa mujj ci seen loxo ñu jël combat boobu nga xam ne événement bu mag la ñu tuddee la ko nan ngay fas yéene waajee bis bi ak nan nga ci jëm. waaye duñ koy waajee vraiment yaakaar naa commencé nañ ko dès maintenant parce que mm. yaa daali moom chaque jour ñu déggante man ak moom même depuis bañ signé contrat bi mm. depuis bañ defee signature contrat bi arène nationale mm. boobu léegi man je me suis ne actuellement affaire bi commencé na te ñun ñëpp waa Pikine dañu xam ne ñun ñoo aayee keneen aayewul donc dañoo war a wane bopp ci bés boobu noonu parce que ñi ñu ci tuddee drapeau bi il faut ñu xam ne incha roi des arènes incha allahu rabbi. nan mm-hmm. mm-hmm. nga fas yéenee ñëw ci arène nationale. parce que arène bi daa mel da nga yuuxu rek yegg si. maa la wax li arène bi man su la neexee sax sama kër mm-hmm. ak arène bi soriwul. donc soo taxawee ci kaw da mën a gis kii bi mais kenn du taxaw ci kaw ñëpp a ñëw dagg bi jàpp ci affaire bi pour que affaire bi mën a am réussite totale. waaw xéwal yi nga xamante jot nañ ko fee lekk sama cameraman bi sëñ Bas gis nga lekk waaw loolu xéwal la parce que euh, man du ma murit mais ba may damay dem Touba gis gars di bernde donc ba mu fa jógee ba léegi dama ne man désormais chaque jour dama war di bernde te incha allah rabbi maa ngi koy ñaan caméraman bi mun naa ko invité ba koor gi jeex am na sama yeneen xar yi nga xam ne dama tàggu seen jabar yi pour ñuy mën a ndogoo fii ku mel ni Sidi Niang mbooj ñemewul jabaram eh. mais xam nga comme te ñemewul jabaram ñem ko tàggul parce que ñaar la am maam Thier mu ngi fi moom it vraiment day bëgg may ndogoo këram hmm. mais nee ko na trop mais dama leen ñaan ngeen ñëw ndogu si hmm. dafa na mu amul benn problème vraiment dinaa ñëw defal la loolu hmm. jot bi amul yéen aussi vraiment maa ngi leen di sant ci loolu parce que jot bi amul jot bi amul mais nag merci beaucoup kontaan de kontaan trop ci ci Idaly Gningue moom mi nga xamante ne mooy promoteur bi vraiment am nañ ci ci événement yu ne rawatina euh, Thielly Agogo bis la boo xamante ni euh, <laughs> stade Diop Iba Mar kenn du ko fàtte bari na ci événement yoo xamante ni ànd nañ kook yow tey nga jëlaat événement bu mel ni tuddee ko Ablaye Djigo sa diggante su relation ak Ablaye Djigo lan la. waaw ah, ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi di sant suñu ñaari waajur di ñaanal suñu Abdou Karim Mbàkke mu yàgg fi di wér di ko ñaanal Cheikh Ndigal Sène di ko ñaanal Baye Jili borom léegi-léegi ñooñu dañ may ñaanal maa ngi am mbégte ñoom bu baax a baax waaw di nuyu sama mbokk bool bool yëpp di ñaanal sama waajuru góor ak sama waajuru jigéen suñu borom bàyyi leen fi ba yéene yëpp ñu àggale ko daal mhm. sa diggante ak Djigo lan la. waaw Djigo dafa nekk grand bu baax nekk nag grand bu ñàkk ki ñaan mhm. xam nga ma gis ko ci koñ bi mu nekk koo xam ne référence la te man dama am vision boo xam ne su ma gisee nit def lu baax mm-hmm. ndax yaa baax moom mënul romb baax te loolu laa gis ci man quoi sama benn boo xam ne nag day lépp ci man muy fii ci Pikine mm-hmm. nekk sama xarit nga xam ne boo ñu gisee ñun ñaar guddeeg bëccëg ñuy ànd ak moom Thierno mi moom mm-hmm. Thierno xam ne xam nga wax dëgg yàlla lépp Pikine daal boo koy xool ci Pikine ak bëgg lu na soo xoolee ci maam Thierno danga ko gis ci moom ndax loolu lay doxee te man li ma gën a ñaax ci moom mooy ma naw ko mooy am na lim xam lim bëgg daal te doomu aadama boo xam ne li nga bëgg rek yaakaar naa foo foo jëm te àggoo fa rek loolu suñu borom moo ko naalagut. Mm-hmm. waaw ñu ngi kontaan ci loolu moom bu baax a baax. nga mm-hmm. fas yéene jëm jëm ci bis bu mag événement bu mag parce que i daal vraiment li nga li nga tëgg man jàpp naa ni est-ce que sax loolu sa idée bopp la est-ce que tournoi boobu yaa ko monté affiche bu mag bi dox ci diggante dab daan ak euh, euh, nu mu tuddati Mbaye Tine Junior euh, yaa ko organisé est-ce que loolu yow yaa ko dox. rek ñoom El Hadj Serigne Faye xam nga ñoom ay ñoom Kaana. Mm. bari na ay ñoom Mour Anta nguy jonn ñooñu dañ may jàppale te yàlla tax. Mm. xam nga di ma jàppale di ma dooleel ñooñu ñoo tax bi yàlla dogalee ñuy waxtaan ci bureau bi. ñoo xam ne am na lamb yoo xam ne amateur lañ ko bëgg te buñ ko génnee comme nag man nekk naa président jeune amateur deux ans kon yaakaar naa su ma génnee lamb rek man yaakaar naa lu ma war a génne dafa war a ñor li ñu daal li ñu bëgg mooy ñi nga xam ne dañ may ñaanal muy bàyyi jiil ak Cheikh Ndigal Sène ak Serigne Abdou Karim Mbacké nañ ma gën a ñaanal ma tam tànk bi ma taxaw ba li ma bëgg a liggéey ci liggéey bi rek ma liggéey ko te maa yaakaar ci ne dinaa ko liggéey quoi que làmb dafa mel ni laaj na euh, financement li ngi ci def ci wàllu moyen boo ko doon xayma ci xaalis ñaata lay toll trente millions quarante quinze vingt. fu mu toll. waaw def nañ ñu war a def rek xam nga ay jullit lan di taalibe waaw non def nañ li ñu war a def rek ñun daal li wër te wër mooy jël nañ drapeau yi jox ko ñi nga xam ne dañ ko war a jox ñi ko a jox lañ ko jox mm. ndax buñ ko jëlee jël euh, ministre de commerce mm. jël drapeau jox ko mm. jël suñu grand bi nga xam ne mooy jigoo jox ko te nga xam ne jigoo lépp loo xam ne luy doxal Pikine yokk Pikine jox Pikine jëm ca kanam mu nekk ci loolu comme ñun joxe ñu leen joxee drapeau a war a jox en tant que nag seen rakk jël na drapeau jox leen mm. waaye nañ xam ne daal am nañ bis yu mag mm. bis bi moom lépp loo xam ne lu la ak loo xam ne buñ ci bu ku ci ñëw yaakaar ne ñu ngi production na ko def mm. te loolu lañ ñuy daal euh, mbër yi ngay wàcc ñoom parce que euh, làmb ji fi toll nii actuellement soxla nañ événement boo xamante ni ay combat espoir comme combat yi nga organise mais événement bi ñu jaay ko ba làmb ji toll fi nga xamante ni ñëpp dañuy xam ni le vingt six am na lu xew loolu nag nga koy waajale non loolu moom duñ ci wax sax waaye xam nañ ne am na xew-xew bu mag bom ndax géewi làmb yeeg pour xam nga ñëpp moom ñu waxtaanee. Hmm. ñaan suñu borom bi nga xam ne mooy borom kat nag man man daal nanu ñu bëgg incha allah bu ñu demee ci ne ñi ngi production ñëwoon na comme ñëwoon ñëwoon le 15 décembre bi passé hmm. Iba Mar Diop. Hmm. Mbëri ñaata jàkkaarloo lañ war a def. waaw war nañoo def am na ay tournée yu war a def yoo xam ne dañ ko def ci biir kër yi nga xam ne comme ni ñu ñëwee fii ci biir kër gi war nañu def boo xam ne dañuy ñëw ànd ak jigo dem ci fànn bi nga xam ne moom lay liggéeyee mm-hmm. ànd ak ci nga xam ne ay mbokkam la ak ay am di mm-hmm. laaj leen kan mooy jikko mm-hmm. def ak ñoom diwee boo xam ci biir marché bi est sa loxo waaw ñëpp xamee fi naa ne ñu bëree bëri du sax waaw non loolu moom insha allah dina am ndax ñun lépp ñëruñu rek dañu war a ne kenn ku ci ne ci gox ba nga nekk di ci liggéey pour wane ci sa bopp Djigo war nañoo génn Pikine xam kan mooy Djigo ak Djigo fan la jëm ndax euh, fi ma jëm moom doon lu ñuy wax dañ koy jëfe ñu gis ko te jëf ji dafa méngoo ak waxam kon suñu gisee ne Djigo mi ngi dox di dox ñun ñi nga xam ne ay ko war a topp ci mm. a dëgg dëgg dëgg dëgg mm. yaakaar naa waaye suñ ko suñu moy matee mm. moom fi mu jëm ñu ngi foofu te incha allah dañ ànd ak moom ba yóbbu ko fu sore sore incha mercredi am nga fi de ñii di tëgg lundi ñii di tagg dimanche yow nga jël mercredi lu tax mercredi bi. waaw xam nga suñu borom bu la mayee xoolul samedi ak dimanche. waaw bis bi mu lay may bis la lay may ak waxtu. Mm-hmm. bu lay may ci la may bu lay xañ ci mm-hmm. ciy jox doomu aadama du la tàggu. Mm-hmm. kon ñun dañoo wóolu yàlla gëm ko ba nag moom man sëñ Abdou Karim Mbacke nga xam ne moom mooy sama référence di sama sëriñ di ma ñaanal li may wax mooy yokkal sa jom te xam li nga bëgg moo tax lépp lu ma dugg rek dama ne gëm-gëm bi may mooy dinaa ci am réussir daal incha làmb mercredi nan la ñu fas yéenee dem dañuy ba heure bi da nga koy yokk def ko huis clos wala noo koy mujjee. non non na ñëw rek affaire yi moom day am lépp de Ndeye Fatou day ñëw moom moo koy tëgg. Hmm. waaw bu moom bëgg nañ ma mu sax. Hmm. mbir yi aw fu nekk waaye mu war fa daal. Hmm. ndax ñoom bis bi moo ko jar daal. ñi nga xam ne dañu ñëw tuddee ci làmb ji. dañuy bëgg xam ne arène bi ñu ngi fii mais teg nañ seen i kër ñëw mais bëgg gunóor dem kër ga daal ndax làmb ji wax. ñenn ñi moom xam naa dañuy yàpp ni Idda ñu ngi dina mën a def làmb ji semi de nocturne mais dafay tombeek xam nga ak arène bi fi mu nekkee ni mu enclavé woo ban taxawaay nga ciy jël ci wàllu sécurité lu mel noonu. waaw loolu moom incha allah jël nañ ci matuwaay yi nga xam ne dañ koy jël ndax du la c'est la première fois ñu tëgg arène bi. Mm-hmm. le 29 février bi passé tëggoon na arène bi. Mm-hmm. suñ borom may na ci ñu commencé ko ci jàmm mu jeex ci jàmm mm-hmm. te loolu incha allah mi nga xamee ne bàyyi jiile borom léegi-léegi ak Cheikh Ndigal mm-hmm. ñoom ñoom arène bi nañ xam ne le 26 daal nañ ëmbal gaa yi defar ci jàmm mu commencé ci jàmm jeex ci jàmm te incha allah noonu lay demee jërëjëf incha allah taw fi mu toll nii daa mel ni li ñu jëloon ci waxtu bari na mhm. lan nga bëggoon wax loo xamante ne laajuma la ko te bëggoon nga koo sànni ci message bi. li mu bëggoon sànni ci message bi bëgg ko wax mooy remercier ñëpp ñi nga xam ne vraiment ñoo may accompagner. Mhm. je remercier jeune Pikinois remercier grand yi. Mm-hmm. ak ñi nga xamante vraiment ñooy notable yi mm-hmm. remercier aussi sama xarit yi nga xam ne vraiment ñoom laa àndal di liggéey ak ñi nga xam vraiment dañ ma fonk ci liggéey bi mm-hmm. bon su ma limee tur mën naa juum remercier aussi sama famille waaw remercier sama famille maa ngi gërëm aussi sama papa sama yaay dafa génn àdduna mais mhm. vraiment xam naa ne ñaanam mu ngi ci man mhm. donc alhamdulilah rabbil alamin mhm. donc vraiment li may wax mooy que ne yéen média bi lu ngeen def baax na mais aussi foofu fu ngeen demati euh, ci ku munti doon ngeen koy introsé muy kilifa parce que yaakaar naa kilifa yi rek ngeen amal affaire donc def leen tout ba nga xam ne a jàll mooy kilifa bu munti doon na a di mën a avancer. man dama bëgg ñëpp yor référence si man. Mm. référence bi du ci ndamu du ci kii parce que am na ñu ma am na ñu gën a mën am na a mm. a mm-hmm. mm. a nga a bëgg. parce que jeunesse yi ñoom ñooy avenir suba. Mm-hmm. donc ñoom suñ baaxee rek ñeneen ñuy ñëw topp ci ginnaaw. dañuy baax. ñun ñoo war a joxe un bon exemple. Hmm. donc référence benn référence am na Pikine peut-être yeneen koñ yi ñoom ñëpp am na référence yu fi nekk. Hmm. te beneen affaire mooy wax mooy que ne tey nekkul jàng dong mooy tax nga am xam-xam. Hmm. nekkul jàng mooy tax nga am métier nekkul jàng mooy tax nga réussir. parce que tey jom moo fi nekk ak fulla ak fayda. bëgg dara gëm sa bopp. képp ku def loolu da nga mën a réussir. Mm-hmm. donc moo moo tax man ma gis na ne vraiment ñun ñoo ngi avancé. Mm-hmm. avancement nekkul li nga xam ne da ngay toog lii jëndi ko gis ne xoolal li mu am xoolal la leen no avancement si direct lay nekk. Mm-hmm. te pour nga xam ne mu ngi sa direct moo ngi xëy suba ba ngoon. ñëpp si sa kër même soo amee tuuti mu lew mu leen yaa ko ñax loolu da nga koy lekk ma mu leen yow lii vraiment man daf ma neex da nga ci fier mhm. donc loolu tax man vraiment lu may lancer sama message mooy que ne képp ki nga xam ne xam na kuy Abdoulaye a mhm. la preuve mooy am na ñu bëri mun nañu laajte ak selon entreprise yu ma jaar mhm. non lu ma gis nii xëyuma rek di gis ma entreprise non j'ai fait dix-sept ans de service yi alhamdulilah responsable laa ma sa nekk am li xam ne su ma la ko waxul sa doo man sama jàng sorowul mais ba ma demee fu ma doon jàngee fu ma doon liggéey lañ ma doon formé ba ni mu bayee jàng cadre la tey sama retraite su jotee retraite cadre lañ may fay. te jànguma ba am nouveau cadre mais dañ ma former may continuer di fay suma jàng di liggéey. Mm-hmm. ba tey ma doon li ma doon bàyyi créer suma entreprise pour que suba ñu ne kii moom moom entreprise boppam. Mm-hmm. donc message boobu su ma ko nga xam ne dañoo am niveau mu ndaw man troisième laa bàyyi jàng. mais actuellement maa ngi sama diplôme cadre. Mm-hmm. en même ba may liggéey naa maa ngi liggéey di jàng ba ma demee ba am ko créer entreprise bi laa ne maintenant man maay doxal sama yëfu bopp tey tey même personnel bu ma am bi ñoom ñëpp man maa leen di former ci selon xam-xam bi ma am. Mhm. léegi ci xam boobu moom moo leen mu ngeen laajtee su ngeen laajtee ci entreprise ma jot a jaar. comme munti doon nga gis ko fa nga ne ko ndax xam nga jikko mooy la xam naa ko dana wax kooku mooy kan. Mhm. ban genre la ak nan laa doon former nit ñi. Mhm. man dong maa doon nekk responsable jël ay journaliers yi nga xam ne xamuñ dara mënul lire ma former leen bañ mun a dawal machine mun a toog nekk fa ay opérateur mhm. man maa doon def promotion boobu di def formation bi ci biir entreprise bu may nekk bi parce que man su may liggéey aw mu heure mhm. man sept heures du matin laa doon xëy ba vingt trois heures su sama kër ñu wooyaa ma xam nga responsable maintenance yombul mhm. nekk responsable production yombul tey foo munti liggéeyee da ngay xam dañ lay soxla vingt quatre heures sur vingt quatre donc man le fait que mu bëggoon liggéey bi noonu moo taxoon may am promotion ci liggéey bi nekkul xam-xam moo taxoon ñu may kii ci liggéey bi de li mu ko bëggoon moo taxoon vraiment ma doon am promotion tey du ma nangu production bi du ma nangu mu tardé machine yi du nangu mu taxaw parce que rendement laa doon soxla te rendement pour nga soxla ko il faut nga nekk gars yi sur le terrain. Mhm. tout le temps maa ngi actuellement fi ma toll nii ak sama propre entreprise soo ñëwee ak ñu may àndal doo xam ne kii mooy patron bi. Mhm. ñun ñooy ndekkandoo sur le terrain liggéeyandoo ma xamal leen li nga xam ne moom la war a xam. Mhm. su ma xamul itamit ma déglu leen a bon loolu mooy li nga xamante ni vraiment nekkoon na ci man pour ma wax ko nit ñi xam loolu mm-hmm. parce que su ma ko waxul duñ ko mën a xam mm-hmm. imagine toi tey euh, yombul Sénégal nga am salaire u six cent cinquante mille nga bàyyi ko de damay liggéeyal sama bopp te ba ngay liggéeyal sa bopp yoroo benn capital lu dul quatre millions laa démarré ci capital bàyyi salaire u six cent cinquante mille ne damay liggéey sama bopp un naa boobu mu métti ci man mu métti ci man mm-hmm. mais heureusement naa kër heureusement sant yàlla parce que amoon naa kër mais xoolal loolu ma la wax noonu. loolu dañ ciy dañ ciy gën a xuus. parce que bi nga bi mu bi nga demee euh, yor 4 millions capital def ko ci mu metti xalaata woon delluwaat ginnaaw di di récupérer salaire cent mille par weer. non benn instant dama ne non damay gën sama bopp parce que man lii ma créé nii il faut ma réussir ci wane ne man dafa métti ma réussir si ma la way loolu am na ay entreprise yu bëri yu ma woo ay entreprise yu bëri yu ma wooyaat ci diggante bi pour ma liggéey même fi ma bàyyi woon liggéey wooyaat nañu man leen non non man xas naa ba démissionné dama bëgg wane un bon exemple ci li may demee hmm. sama oto ba may njëkk a jënd oto maa ngi jëndee oto bi un million sama oto moo nekkoon sama bureau ci laa doon xëy huit heures génnee sama kër ba vingt deux heures vingt trois heures laa ñib si te moo nekkoon sama bureau léegi alhamdulilah maa ngi suma entreprise sant mm. yàlla. Mm. donc ñu ñaan yàlla ku mu munti doon soo ñëwee si ma naa la tegal programme ak projet bi nga xamante ni yow soo ci nekkee da ci mën a liggéey. Mm. projet yëpp nag xaw ma ko mais du problème bi nga xam ne dañuy teg ci table bi def ko sous table nga xam ne loolu après dañ koy fàtte. Mhm. parce que idée yi moo ngi fii xam-xam bi mu ngi fii. Mhm. moyens yi ban lu bëri naan moyen moyen kenn du ko wax mais moyens yi mu ngi que lu tax ma ne moyens yi mu ngi fii mooy tey nit luñ ko doyee dooleem ak xam-xamam. Mhm. tey nekkul xaalis mooy liggéey mooy réaliser projet ci la bokk dañ lay accompagner. te yaakaar naa am na nga xam ne ay bonne volonté lañ ñoo ngi fii ci dëkk yi surtout Pikine Nord ñu ngi fi dëkk ñoom te dañ def tout pour que vraiment ñu yi nga xam ne ay bonne volonté lañ pour seen projet ñu mun ko réaliser. ñaan jigéen ñi la ñuy financer parce que jigéen ñi ñoo du ma ne ñoo gën a am jom non parce que jigéen moo gën a am lu muy bañ. Mm-hmm. góor lu muy gis mooy vraiment man naa am salaire bi nga xam ne naa ci mën a suturlu su ma xëyee ma ñëw joxe ko toog mais jigéen danaan non man su ma amee lii tey suba dama war a am lii. Mm-hmm. la preuve mooy ñun ñii ñëpp su fekkee ñu ci yor ay soxna lañ xam nañ da ngay gis soo xëyee li nga war a mën a joxe da koy joxe mais soo ñëwee des fois dañ la tegal li nga xam ne dal lay leer ni lii nekkul moom nga joxe. Hmm. parce que organisation bi de loo gis si dëkk bi loo gis Sénégal loo gis muy pikin organisation mooy tax mu jëm kanam te organisation moom ci laa jàpp te ci laa bëgg képp ku muntoon nga xam ma nga ñoo jàppale ma ci loolu. Hmm. pour ñu mën a avancer. ndeysaan am na solo ma lay jaajëfal bu baax a baax parce que nekk na message boo xamante ni képp kuy jeune. bëgg dara message la boo xamante ni yegg na ci ci ci sa xol. boo ko déggee xam ne wa vraiment wax ji am na solo trop parce que nit ki yoo xamante ni li muy wane chaque fois rek mooy gëm sa bopp parce que li nga fi wax yëpp mooy jeune un jeune dafa war gëm boppam. war a xam li mu bëgg dafa war a am jom surtout. parce que message la boo xamante ni dañ la ciy jaajëfal bu baax a baax ñun ñi nga xamante ni ñun ñooy xale yi di la jaajëfal encore une fois. voilà merci beaucoup maa leen sant leen gërëm. merci yal na yàlla motal lépp incha allahu rabbi mm. ñëpp jàpp ci convoi bi pour que waa Pikine mun a am ndam mm. affaire bu Abdoulaye Diego de affaire bu du Wadaali affaire bu du presse bi affaire bi ñun la waa Pikine mm. kon donc nañ xam ne affaire bi pour ñun la du pour keneen mbër yi moom it ñu gën a góorgóorlu xam ne ne vraiment loo gis métier la loo gis métier la lu bon rek mooy jël loo moomul mais lépp li nga xam ne yaa ngi koy def di ñàq soo ko yóbbee sa kër day lew te sa njaboot gi nga koy jox aussi dañu xam ne ne vraiment ñun ñii kat li ñu jox nii lew na mm-hmm. sant yàlla merci beaucoup alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf mbokk yi kon noonu la demee eh, kilifa gi kilifa gi nga baal ñu fàttaliwaat ñu tur bi tuuti waaw maa ngi lay ku baax di la ziar bu baax di la jox sa wàccuwaay di lu ñëw bi nga ñëw fii tey ji euh, pour mën a def mission bu am solo. Mm-hmm. waaw man nag ñu ma xam ci Sidi Niang. Mm-hmm. Euh, ñu gën ma xam ci doomu Pikine. Mm-hmm. diggante tali bu mag tali bees. voilà yaakaar naa Sidi Niang Pikine tali euh, tali mag tali bees kenn dootu ko fi présenté. voilà. Sidi sa relation ak Ablaye Djigo nga xamante ni moom la ñu nga tuddee bisam bi seen relation yéen ñaar fan la dooree ak lan la. waaw Ablaye Djigo dafa nekk doomu Pikine ma nekk doomu Pikine. vraiment mu nekkoon ci ay sociétés yu mag di fa liggéey. Mm-hmm. man tamit ma nekkoon ci ay sociétés yu mag di fa liggéey. Mm-hmm. Euh, man jaar naa ci ay matières yu bari. Mm-hmm. donc euh, moom tamit mu jaar ci matière yu bari. ma def benn bref pour euh, waxtaan bi gën a gaaw. mag mu ñu gisee. donc jaar-jaar bi sama palmarès mu riis trop moom tam palmarès mu riis trop. ñu toog waxtaan en tant que ñaari deretu doomu Pikine. ñu toog di waxtaan. ñu gis ne ku ci nekk formé nga ay nit ñu bari. ñu toog na pourquoi pas mun ñu teg benn affaire bi nga xamante ni di dundal Pikine te Pikine ku ne Pikine na seize communes ku ne Pikine na seize communes parce que tout le temps dañ naan Pikine Nord Pikine Nord mais Wassare Général Lourd du affaire Pikine Nord dañuy wax ci seize commune bi pour le moment wane fi suñu euh, xarañte mm-hmm. wane fi suñu man-man mm-hmm. doog a wax nag Sénégal ak lu ko wër wax diaspora partout dans le monde donte tur ba àgg na fa mais dañuy njëkk a commencé suñu weewu tànk voilà donc ñu waxtaan taxawal Wassare la Lour tey jii euh, lépp lu ñu def rek donc dama naan Abdoulaye Djiko man Sidi damay nekk ci ginnaaw voilà parce que say boo nekk ak say nawle donc euh, ñu jë njëkk la ci entreprise bi yow nga ñëw ñu jox la loxo ne la affaire yaa ngi noonu yow toujours da nga leen di jiital parce que loolu mooy sagesse loolu mooy noble donc euh, loolu tamit euh, ma gis ko ci biir entreprise bi ñëpp ñu bokk ndey ak baay. Mm. laay mi ngi fi comprendre nga euh, Mbodj mu ngi fi. aadama mm. mu ngi fi et cetera ñi nekk effectif yi ñi fi nekk ñëpp bari nañu. Mm. kenn mënul lépp ñu lim ñëpp. donc loolu nekk ci biir entreprise bi rafet trop. donc ak Thier iPhone bi ngay dégg. ci biir groupe bi la bokk. comprendre nga Thier Stylis bi ngay dégg ci biir groupe bi la bokk. loolu yëpp nekk ay xeet développement yi nga xam te ni ba ba léegi. comprendre nga ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy développé. Mm. ak yeneen gars yoo xam ne tey tey yaa ngi leen di dégg. Mm. ñu ngi ci biir entreprise bi. te bëgguñu kenn di dégg seen tur. Mm. te ñu siiw leen fii ci biir Sénégal. comprendre nga donc kon loolu nekk affaire bu nice. Euh, ñu ngi production. ñëw seet si ñu. waxtaan ak ñun. nanu li ngeen di liggéey. man maa dox ba teg ci bët moom moo dox ba teg ci bëtam. Hmm. moom ñu ngi production. Hmm. na waaw xam nga ñu ngi production moom day côtoyer gars yi. Hmm. voilà donc mu dox ba gis na li nga xam te ni ñun ñoo ko samp. parce que yaakaar naa entreprise bu taxawee di tabax ay kër. di dem di jël ay sites yi nga xam te ne ay sites yi accessible la. jël ko defar ko jox ko askan wi ne dëkk leen. ndax ngeen tàggoog lu waaye. yaakaar naa entreprise boobu président de la république. moom moo war a yebal mm-hmm. ñi nga xamante ne ni ay liggéeykat la na leen ah dem leen ngeen song ma wasaa gen la nguur ngeen leen ma ko parce que lu muy def man sama devoir la man président de la république mm-hmm. loolu message da bu may lancé président de suñu président mm-hmm. euh, Macky Sall donc loolu bref la donc yadaal yi moom am na soxla laaj ma lu tax moom soxla parce que dafa dafa song entreprise bi nga xamante ni bari na tey entreprise yi ñu fi dégg wasaa gen la lu muy liggéey ko liggéey man leer na ma comprendre nga hmm. parce que man mi di wax ni tey jii ñu bëri xam man baax li may wax hmm. nekkoon naa ci ay groupe yu bari di fa liggéey hmm. boo woowee Karim Wade dina wax naan xam naa Sidi Niang bu baax moom Macky saal moom dégg na sama tur bu baax comprendre nga kon su ma nee man ab ab man damay ànd ak Abdoulaye Djigo liggéey ak moom c'est parce que am na lu nekk ci moom lan moo nekk ci moom. parce que dafa dama ko fekk mu teg loo nga xamante ne nii donc man loolu laa gëm ci ki nga xamante ni développement la gëm. na nga fa dëgg. koo xam da nga fekk mu teg loo xam te ni développement la développement la donc man na ñëw ci daan dox ci loolu ay ati at donc damay ànd ak moom jàppante ak moom pourquoi pas. doomu Pikine la doomu Pikine la Almadi laa bàyyi. Ngor Almadi moom laa bàyyi foofu noonu lépp bàyyi leen ne leen doxal leen damay dem suqali Pikine. parce que 2007 laa fi jigéen. ci ay fan mën na maa seede. formé naa fi 18 personnes yoo xam ne tey ku ci nekk yaay sa kër bàyyi. man istilisi laa top modèle laa woon. tey may liggéey tey ci wàllu BTP. waaw lu ne def naa ko ci mode. Mm-hmm. voilà donc tey ji loolu moom ma dugal tey ji tey moom ma permettre tey may liggéey plan. Mm-hmm. xam li ci nekk. Mm-hmm. waaw donc kon Ablaye Djiko donc bu créé Wassare naa Lourd mais pour Pikine la kooku doomu Pikine yëpp ko moom sànq ab def na def na ci benn benn lancé na ci benn message mais damay wax doomu Pikine yi na leen Ablaye Djiko ba ba léegi mu ngi leen di woo mais na ngeen xam ne Wassare Général Lourd pour affaire Pikine la pikinité pikinité quoi comprendre gars yi dañu euh, ay piki banlieue banlieue banlieue man leen bon lieu bon lieu mhm. man musuma dugg ku ñu jéem a euh, isolé naan ay pikin ay ñu fay dikk ay boy bandi lanu nangam nangam dugg fi génn fii mhm. almadi ku ma mos a wax ne man pikin laa juddoo pikin laa màggee dañ naan non c'est pas vrai Sidi yow dëkkoo pikin mhm. parce que lu ma leen wan la nga kon euh, lu may lancé mooy que Yadaly mii Yadaly production. Mm-hmm. def na lu nga xam te ne mboolem promoteur bu fi nekk na nga xam ne yow yaa war yaa fa waroon a ji ñi fi njëkk Yadaly ñoom ñoo fa waroon a jiitu. Mm-hmm. mais comme Yadaly jiitu na la xam ne dinañ dégg Yadaly fu sore sori. Mm-hmm. incha allah rabbi ko dégg fu sore sori. parce que bépp développement boo fa teg. mënu fee teg développement bi nga xamante ne ni tabax ay kër jox ay nit ne leen dëkk leen développement mënu ko weesu. parce que tey jàmm naa li muy rëy rëy Macky Sall promotion bu gën a rëy la. man maa sanc jam ñaajo port daal boo leen ne avant loolu dëgg ab Abdoulaye Wade mu ci doon kii mais tey jii tey Macky Sall li mu gën a wax tey ci li muy liggéey ci réew mi mooy ko maa man maa man maa soqali béréb sàngam man maa tax béréb sàngam siw mm-hmm. ñun ñaata suite lañ am ci yoo xamante ni ñu ngi ko tabax di ko jox ay nit ñu dëkk luyee te xam nga ne jamono ji kenn bàyyitul kenn nga toog 3 mois 4 mois fayoo ñu bàyyi dafa génne bu bu gaaw bu gaaw bu rafet. assignation la lay dóor ak ay mise à kon Wassare Salambour bu ñuy di liggéey ci loolu kon nekkatul affaire entreprise mm. affaire état la waaw. kon la leen état war a jàppale. Mm. ndimbal bi mm. est que yéen a ngi démarché loolu pour état war leen a gën a jàppale parce que ay jeunes yoo xamante ni dañu dëkk ci réew mi am ambition am fu ñu teg seen bët. am fu ñu bëgg a yóbbu Sénégal surtout est-ce que état bi yéen ngi def ay démarches yooyu pour mu mën leen a jàppale. waaw liggéey ak euh, état mënut a mm-hmm. kayit am. mu commencé acte administratif mm-hmm. délibération mm-hmm. notification bail TF individuel mm-hmm. autorisation de construction loolu lépp yaa ngi ci biir état yaa ngi ci biir état que euh, dañoo nekk ci dëkk bi nga xamante ne nii donc euh, voilà quoi yaa ma gën a xam dëkk bi ni muy doxee mais am na yeneen dëkk yoo xam te ne bu ñu gisee wasa bu doon bu wasa bu nekkoon tey jii euh, par exemple Paris wala mu nekk États-Unis wala mu nekkoon Londres bu defee benn un état bi mu koy téye amee. <laughs> mais danoo nekk Afrique nekk Sénégal comprends nga. mais loolu xëy na président dina ci bàyyi xel peut-être yenn information yi euh, dafa dafa dafa jàllagul wala dafa àggsegul ci moom. comprends nga mais le fait que tey jii ñu ngi tey production ñu nga seet si ñu bu ko seetaanee xëy na moom dina def benn benn benn acte boo xam ne dina mën a toog ak moom wax ko suñu projet parce que suñu projet tey jii euh, yu ñu tegagum ñi rek. ëpp na cent vingt milliards. ci lu ñu tegagul nii rek ci ak benn bref may def rek ëpp na cent vingt milliards. ci li nga xamante nii ni euh, présenté yi bu ko gisoon donc dina ne lii man foogoon naa ne euh, entreprise yu nekk Sénégal osé wuñu nii. voilà ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne nii euh, tey jii bu bu xaw ñu ngi ko préparé lépp pour bëgg développement. bëgg jeunes yi liggéey liggéey bi nga xam te kenn ku ci nekk da ngay mënal sa bopp. mënal sa bopp. ak ñun am nañ sécurité téye nañ ko suñu loxo. zone bu ci nekk zone bu ci nekk mënal sa bopp. surtout mënal sa bopp. Mm-hmm. ñun am na sécurité téye nañ ko suñu loxo. Mm-hmm. téye nañ ko suñu loxo bu wér. Mm-hmm. loolu moom dama koy wax état bu Sénégal. voilà gannaaw bu ñu waxee dëkkuwaay ak lu ci jëm. waaye li ma la wax daal mooy que ñu ngi production. jiitu na gars yi fu mu war a jiitu gars yi. te ku mu joxul du am. maa ngi koy wax promoteur yëpp. man Sidi Niang maa ko wax. jërëjëf Sidi maa ngi jaajëfal bu baax ndax xam naa ne euh, li duuf ci nag bi xajandoowul ci cin bi. Mm-hmm. waaw donc kon nag ñu rafetlu ñëw bi ngeen ñëw fii euh, rafetlu aussi tamit journée bi euh, mu nekk mercredi le vingt six mai. du woon ak Sénégal yëpp. Mm-hmm. di woo Sénégal gi yëpp yëpp yëpp yëpp te xam na ñaari mbër yi nga xam ni ñoom ñooy bëre mm-hmm. jour boobu Euh, seen tour dina fa jaare siw parce que kenn ku ci nekk incha allah rabbi bu affaire yi passé mhm. dinañ topp sa carrière. Atou Daouda Fall Yankaw Junior. waaw ah. kenn bu affaire yi kenn ku ci nekk ah, dinañ topp sa carrière. Euh, taxawu la parce que ñun tam loolu mooy suñu devoir. Mhm. parce que mun ñu ne dañuy taxaw ci jeunes yi ba pare donc bëre ba pare ñu bàyyi la noonu. Mhm. xam nga ku ci daan daal dinañ topp sa carrière ba nga nekk fii roi des arènes. incha allah rabbi loolu moom benn promesse la bi nga xamante ne nii maa ngi koy junj en attendant pour les événements. Mm. voilà donc di la a jàmm. ak salaam di la wax na la daal euh, kontaan nañu kontaan nañu donc Sénégal tamit euh, xam naa ne kontaan nañu. Mm-hmm. parce que ñoom tout le temps lu ñuy bëgg lu ñuy génnee euh, ñëpp di ko gis mooy li nga xamante ne njëriñu gox ba nga dëkk la waaye tamit njariñu département ba nga dëkk la mais tamit njëriñu Sénégal la. Mm-hmm. donc te président bi loolu la bëgg. képp ki nga xamante ne bëgg na lu baax tamit loolu la bëgg. Mm-hmm. jeunes yi tamit loolu lañu bëgg parce que jeunes yi bëgg nañ tegu ci yoon. mais ku leen teg ci yoon lañ gisul. gisul waaw nan bàyyi jeunes yi amuñu jom. Mm-hmm. nan bàyyi moom boobu. Mm-hmm. nan ko bàyyi jeunes yi bëgg na lu baax mais ku leen teg ci yoon nan gisul. Mm-hmm. voilà ku teg ci yoon nan gisul. voilà kon euh, di leen gërëmaat di leen sant. di leen jaajëfal bu baax di leen wax ne leen daal cant ak ngërëm ñeel na leen waaw kontaan bu baax a baax jërëjëf. sax na yi kan moo war a ñëw soxna si noo def. maa ngi fi. noo tudd. Wassa Jigo. Wassa Jigo. waaw. sax yow da am da kii ak kii bi sax. <laughs> quoi. noo noo def a coono. Euh, ça va ah, maa ngi ci koor <laughs> yi. ñu amagul. nga am laa am. kon <laughs> yaakaar naa est de jours yi ñu ci am laa amagum instant bii mm-hmm. Mm-hmm. xam nga li ñu fi indi. Euh, wax ma ko ma ma gën kaa xamante dañoo ki nga xamante ne mooy Ablaye Djigo uh-huh. drapeau ñoo ñëw tey ngir seet si ko ba nga xam moom mooy kan uh-huh. lan nga ci moom ak lan nga ma mën a wax ci moom euh, Ablaye Djigo sama mag la ni hmm. ko baax hmm. euh, comme na leen koy déggee PDG Wassa Général Lour hmm. di dox ci social Mm-hmm. yéen ñëpp jàmm. Mm-hmm. bëgg fi àgg. Mm-hmm. jeunes yëpp àgg fa ba romb ko moom même moom. tey lu gën a neex ci moom loo xamante ni saa su ne rek da gën a fier ci bokk bokk ak moom. baax am yërmande. bëgg fameem te nit moom lu mu mel lu dul bëgg fameem. Euh, nit kooku noonu mënuñu wax ci moom lu bari. moom lépp loo leen gis ci moom la ngeen dégg ko ci moom ci fameem la ko njëkkee. parce que boo xoolee ci këram gi. Mm-hmm. ay fam ma nga fi gis ñun ay rakkam la ñoo fi nekk. Mm-hmm. pratiquement mën naa ne ñun ñëpp ñoo ngi fi indi. Mm-hmm. te am nañ fa ñu nekk mais nanguwul kenn dem. ñëpp ñoo ngi fii këram. donc ñun nañ koy ñaanal gudd fan wéex ak weer la yàlla yokk man mën gi. dolli ko kàttan. incha allah bi nga waxoon naa moom boo xamante ni. boole day boole ñëpp. boole moom daal ambition am loolu la vision aussi lool la. ñëpp jëm kanam. Euh, Euh, dëkkam euh, di xool aussi luy avancer dëkkam. Mhm. ndogu bi reer la wala ndogu la parce que dañoo ñëw gis plat yi affaire yi fees dellu bari macha allah tardé nañ waaye lañ fi fekk boobu dafa mel ba tardé nañ ci li ñu wax boog léegi tardé nañ. <laughs> waaw reer goo leen li ndogu rek la woon pour couper couper zone bi mais ñoo ngi ñëw indil leen léegi ndogu bi tax ñu naan ndogu après bu demee ba ci kanam côté 23h ñu tegal leen reer incha allah. lii loolu. waaw benn rek. ñun loolu lañ xam teraanga moom loolu la xam ci loolu lay dox. looloo xew kër Ablaye Djigo looloo fi xew. chaque jour loolu lii moo fi am du tay rek la fi am chaque jour moom loolu la xam. Hmm. Mhm. est-ce que Djigo du ma nekk Ramadan. Hmm. est-ce que Djigo du ma fii chambre ci kër gi desul benn chambre nga ñëw di reer si rek ba koor gi jeex. xaj nga fi këram ñëpp xaj nañ fi. ku ñëw xaj nga fi incha hmm. allah. Mhm. ma lay jaajëfal bu baax a baax a baax. <laughs> merci. am nga borom kër. <laughs> waxal leneen. Ah? waxal leneen. am nga leneen. Ah, bon waxal si leneen s'il ah. un peu privé waaw. dafa am ñoo xamante ni dama la leen yéene. un peu privé. jërëjëf ma lay jaajëfal bu baax kontaan naa bu baax a baax. merci merci beaucoup. kilifa gi maa ngi lay nuyu. ngi lay ziar ñu ngi lay. maam Thierno. maam Thierno waaw. na Thierno ni ma gis nga sol Airbus bi Airbus bi laa waaw benn marque la rek boo xam ne doomu Pikine moom moo ko taxawal. Mm-hmm. nekk jeune aussi. Mm-hmm. waaw Pikine daal vraiment am na am na ay mbëru làmb mais am na ay jeunes yu am jom yoo xamante ne chaque fois ñu ngi jéem a créer lenn pour turu Pikine jëm ci kanam loolu la la. yow Pikine moo téye àdduna bi ndaanaa ni boo leen génnee Pikine Pikine dara du fi des. Pikine am nañ promoteur de immobilier. Mm-hmm. promoteur immobilier. am nañ promoteur làmb mm-hmm. am nañ roi des arènes mm-hmm. am nañ joueur international mm-hmm. am nañ téer bu mën a ñaw am nañ chauffeur bu mën a dawal loolu de nekk na lu am solo bi. am tamit ay am nañ kuy jaay ay ay fët ay onze mu ngi nii maam Thierno iPhone waaw am koy jaay ay designer Cheikh Fall mm-hmm. Zamal mii di tétuwe a <laughs> Pikine am ay ndaanaan fii la mburu mi di xoyam xoyamee de barke Serigne Touba ndaanaan yaa ngi fii waaw ak banaat euh, marque bi laa bëgg ñu gën ci waxtaan marque bi lan la waaw mooy li ma la wax rek marque bu bees la mm. boo xam dañu war a am suñu marque ndax man consommé local laay dundal mm-hmm. man dama raciste sama réew rek moom ñor mm-hmm. lépp lu may sol rek doomu réew mi fii lañ koy def rek mm-hmm. ba ci ñu la sol nii ñun noonu la ñuy fonctionné moro ñu créé suñu marque bu bees teg ko bientôt incha allahu rabbi dinañ ko exposé àdduna yëpp teg seen bët publicité la ci lépp ci wàllu sañse ci lépp ah ci lépp waaye am na yu dàq yi di nga sol am na yu dàq yi ah. waaw yoo xam ne mu ci biir ah kon de kii léegi ma dàq ko si. Euh, làmb ji lëkkal ne le 26. waaw di nga gis loo mos a gis àdduna. ci wàllum sañse. bëgg sañse moo tax ku sañse sama xol day seet. la indi caméra yow fekk suñu si kër gi fii dañ lay invité maanaam suñu préparation beeg yooyu. Hmm. yow dañ lay invité spécial nga ñëw. Hmm. su ko defee nga mën a jël yenn kii. Hmm. du mën a ñàkk. waaw mënut a ñàkk moom. ma lay jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal yow it. di am mbégte kontaan aussi. di remercier aussi euh, PDG. di président Djigo vraiment nit ku baax la suñu xarit la te daal nag li mu def moom xam ko sax parce que doomu Pikine la mu ñëw fekk doomu Pikine comme moom mu tuddee ko drapeau bi te maa ngi dégg sax ci maa ngi dégg léegi ñu may déene ma xam ministre la ban ministre la tuddee beneen ministre commerce la tuddee xam premier combat xam deuxième combat duñ ko may dara mm. bu teel ñëw wallaay la seen géttu bee lay toogi billaahi bu teel ñëw géttu bee lay toogi Pikine de luñ la wax takkal téere ñun dinañ mobiliser li ñu xoo bi dégg la lu ñu wax takkal bu yéexee ñëw tuuti géttu bee lay laal ñun su am nañu ay ministre ba fees ko dell ñu nii suñu wet ndaanaan yaa ngi ñii na teel a rek ñu teel koo xajal benn côté bi rek mu may ñëw stade bi te bu laa mu jeexee ñu takk dem ñibbi dinañ ànd ak gars yi convoi bi ñoom seex Fall gars yi ñu préparé mobilisation beeg yooyu lépp loo gis muy weex tàll xamal ni ñu na incha allahu rabbi. balaa rek loolu jàmm. maa organisation bi loolu. sat dañ koy defar ba mu nice. jërëjëf mbokk yi loolu lañ leen fas yéene woon tey ñëw Pikine kër Ablaye Djigo euh, ngir dégtal leen ko mu doon loo xamante ni ñu ngi jëm ci le vingt six incha allahu rabbi ci zone idaali ñu ngi bi di leen tàggu bu baax a baax a baax ci tàggoo bi nga xamante ni moo dul tàqali ko ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xew jërë ngeen jëf.